day wàcc taxaw nii ba xool xool rek. waaw kay.

ci assise nga xam ne law na ci raison yi ci Sénégal yëpp te Touba am ci cër bu rëy du mbooloom dara nag lu dul mbooloom moo xam ne dañ koo dajale di ay taalibe yoo xam ne dañoo séq luñ munta séddoo ñu dajaloo ci kuréel googu di ci xàccandoo di ci dóorandoo du ñàkk sax mbàkke yënga suñu yëngu-yëngu te lii tamit gënalu nu buñ sañan balaa lii xew nooy ñëw fa ñun fa yow fa nga nekk gaaral la suñu bopp ndax kuy kilifa ci dëkk bi rek ah rawatina ku am ndax fi ne dara umpeetul képp ku taxaw rek taxawaay ba nga am ñëpp yëg nañ ko kon ñoo fa waroon ñëw ñu lay jégglu ci loolu sunu yeex ba lii xew ba nga ñëw ah dégg nga yëngu bi université bee bu Serigne Touba ca la bokk te commerçant yi dëkk bi yëpp bokk fa jël fa ñaari bâtiment boo xam ne bu ne 400 millions mu 800 ngir liggéeyub sa bàyyi bu sa maam ju tedd ja ak sa mag ju baax ji fi nekk loolu ak leeral la rek xamal la li tax kuréel gi jóg ndax boo dégg yëngu bi xam ne du yëngu yoo kuréel yi nga xam ne mooy yeneen yi waaye kuréel la goo xam ne rek ñu bokk luñ mënta séddoo ñoo ci nekk te mu làmb Touba gépp nag ci yëpp te loo ci déggit fii ñu ngi la koy wax loo xam ne yaa aw yoon la wuñ dox wuñ wërta dox mbàkke wooñu ni ñu lii ngeen di dox du doxeen wi ndax ay gone yi ci nekk ak ay mag waaye ñu bëgg a liggéey bëgg a liggéeyal Serigne Touba waaye njuumte mën naa am boo ko déggee rek ñoo ngi lay suñu bopp ci loolu di la sant di la gërëm ci teewaay bi ci turu mbooloo mi fi ñëpp te xam ne mbir mii daal ci suñu kaw metti na léeg-léeg nit la ñu dégg naa bokkoo ci ma ne ah ñëpp ci bokk lii dalul ci marchand ambulant dalul ci tablier ci jaaykat la dal askan wépp ci la dal li koy waral mooy sa tànk yi fii te jombul gën nga fi lool ci marché bi maa mbokk bi tax laa jóg ak ku mel ne sëñ Bassirou Abdou Khadir mi fi jóge ak ñeneen ak ñeneen kon ci ñëpp la dal Mbàkke ah waaye nag wayef na ci ñun tooy ndax yéen ñi njabootu Serigne Touba bu ngeen ñëwee ba fii ak coono yi ngeen di eh, toggal ak jot ni mu wax dëgg yàlla xam nañu mbir mi ñor na leen yëg ngeen ko bu baax a baax ñuy sàkku ngeen dooleel ñu ñaan bu baax ne xam ne yéen a nga ca te jotalal nu ko kilifa gi bu baax a baax te xam ni xam na ni sax yëg nañ yëf yi metti ndax kàddu yi mu jotal yëg nañ ko waaye nag bu dollee ñaan ba ñi ci ñàkk liñ ci ñàkk suñu borom wuutal leen loo xam ne bu nëgë ni si déwénee dañ ko fàtte bu soob yàlla di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la dalal mbàkke di jégalu bu baax ci kàddu yi nag jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen samay bokki taalibe di samay bokki dëkkandoo maa ngi leen di nuyu di leen massawu di leen ñaanal dafa mel ne sax ci suba laa yëgle woon bëggoon a ñëw waaye gannaaw bi mu mel ne ngoon gi mooy gën ndax ñu ko war a yëg yëguñu ko gannaaw bi ma añee ba noppit laay door a yëg ne sëñ Basiiru ñëw na fi ba waxtaan ak yéen waaye day mel ne ak ñëwam mooy ñëwum ñëpp ay waxam mooy waxi ñëpp ndax dafay ñëwal kilifa gi kàddoom it kàddu kilifa gi ba tax na bu fekkutoon sama kàddu jib sax new ma duma ñëw waaye du ma ñëw léegi damay bàyyi ba ca kanam waaye nañ ña xam ñépp xam nañ ne maag moom benn lañ duñu réeroo ci dara xëy na ñàkk a koo téléphone wala ma tëj sama téléphone mënumaa jot moo tax yëguma woon ñëw gi ci man a yooyu waaye kon sax man nañoo ànd ci biir loolu nag kàddu yi mu wax rek jële ko ci sëriñ bi wax leen ko doy na sëkk man bu ma ñëwoon ba gis ba gis leen ngeen gis ma ma saafonte ak yéen defal leen rek bu ma waxutoon benn baat it waxi sëñ bas doy na sëkk xam naa damay gàttal rek ndax waxtu wi li alquran di wax ne aoudu billahi min alcheytaan arrajim wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljuuci wa naqsi min alamwali wal anfusi walsamarat sunu borom bu leen nattoo bakkan yuy rot wala wàññikuk alal wàññikuk alal te yaakaar naa wàññi ko alal sax moo tane bakkan yu rot yooyu lum la ci nattoo te nga muñ ko muñ gu rafet pay gaa nga ca kanam pay goo xam ne moo gën alal ji fuuf boo ko xamee wa basiri saabirina alladina ida asaabatum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun luy pay gi ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma bu la borom tegeem natt nga muñ ko muñ gu rafet maa ngi lay faye salawaatum min rabbihim wa ma ay xéewal yu jóge suñ borom yu ànd ak yërma dem te loolu ñëpp yi wut ndax nit ànd naag njabootam ànd naag alalam te du tax mu mën am loolu kon nag bu la suñ borom xañee loolu yi te fayee la ko salawaatum min rabbihim wa rahma loolu jàpp naa ne kuñ ci wonoon pay nga ba nga gis ko boo ko muñee muñ ko rafet ña liy delul sax dañ dañuy ñaan yàlla mu dal leen kon nag war ngeen sant yàlla bu baax julit yëpp war a muñ waaye nun talibi seigne touba Tuubaa ñoo ci raw ndax ki nu yaakaarul kudul mom moom muy Cheikhul Khadim dafa dakk muñ muñ kat yëpp te gëna rafet nu muy muñe ndax muñ kat yëpp li ñuy muñ moy muñ yam ca mom day muñ boole ci sant yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manaata faridan wa sabru sama borom man boo ma bu ma la laajee waaye ni may sante boo ma joxee ni lay sante waat boo ma xañee waaw damay boole muñ ak sant te loolu sax mottali way wi la waaye sant rek lay def wa in manaata faridan wa sabru kon nag ku aju ci ku mel nii war ngay xool ci sëriñ bi ba lu la yàlla teg nga mën koo muñ ngir jëmmam jooji ndax lii leen dal tey jëkkewut ci yéen te du ci mujj sëriñ bi bi mu jógee ci géej gi ba ñëw tuubaa tubaa mooy darul mën naa nag li war tubaa gépp rek na mu ñëwaatul biir Touba waaye fu mu ne mooy Touba ci misaal ñibbi si daal daarul mën naan diir bu gàtt la fi am waaye bi mu egsee kër gi dafa lakk ba defub doom lim liggéeyal yàlla ci géej gi ni mu toll lim lim jaamu yàlla ak lim liggéeyal yonent bi lépp te teewut bi mu dikkee ba sanc ñëpp fekk si ko fi ñu xëy xëy kër gi tàkk ba defub doom kon loolu am na lu muy wane loolu mooy sababu. tuuma yi ko doon tuumaal ne di wuti ngànnaay ndax dafaa jógee ñëw daarul alimil khabir sañ ci kër gu jakarlo mom moy fi Sëñ Murtala dekk ñu di wax daaru salam fa la tok ñi defar kër gi biñ ko defare ba nopi sunu mam Cheikh ibrahim Fall ak sunu mam Sëñ Ahmadou Ndumbe dem di wuti ay bagage yu ñu def ci kër gi ay lal ci gilem di ko am ñuko gis gis tanke lal yi lal yoy am ci bo xamne ne meññeek man ci man lu misal ma ngono guddaayu tànki lal yi lañ gis teg ko ay fetal daal li jaxase sëñ bi moo tax ñu jëliwaat ko fi yóbbu gànnaar kon ci lakk la sababu sëñ bi génnewaatee réew mi dem gànnaar kon sababu ñaari ñaari nattoo ci am lakk na kër ga lakk nañ kër ga ba mu jax tàkk ba noppi nag jëliwaat ko fi ci njabootum yóbbu te li lépp ci lakk la sababu kon nag loolu da nga ciy jàngate ne dafa am natt yoo xam ne bu dee ci ñi gëmut yàlla mbugal la waaye bu dee ci ñi gëm yàlla nattu la nattu nag la ci suñ borom di teg bu ko ab jullit xamoon waxuma la sax muñ waaye day ñaan yàlla bisu set mu nattu ko kon nag nan bokk muñ te yeesalaat suñ pas-pas Sëriñ Tuubaa te xam ne képp ku taxaw ci dëkk bii ne fi mi ngi lay gis mi ngi lay yëg mi ngi lay xam mi ngi lay bàyyi xel li ngeen amoon lépp ki leen ko joxoon du fi jóg mooy yàlla te ci dara yee Sëriñ Tuubaa leen ko joxe woon jàppaat leen ci Sëriñ Tuubaa ngooy si bañ koo booleek dara yeesalaat seen pas-pas te góorgóorlu wat liggey dana wat lu gën lolu fuf gën ko sedd gën ko yaatu gën ko barke ci je seigne touba seigne bi ne na yalla bu la tege dara dang koy muñ neena boko beugé faji ay wax day soppi ko jaan mat la boo ko ay jëf day soppi ko sawar lak la neena boko muñé nak ngir yalla day doon dox mu sedd nga nan ko kon nak ma ngi len di digel ngeen muñ ta rafetal muñ gi bu pay gi ñëwee da ngeen fàtte lu leen yàlla tegoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu